jar na jar na année sans presse alors euh, su may déglu bu baax euh, li fi Ayob expliqué yëpp nga xam ne mi ngi ci taabalu président de la république le mm-hmm. président Bassirou Diomaye Faye parce que le rapport de la convention des journaux de presse moom la ko joxoon li impo wax Ousmane Sonko le premier ministre au courant de tout est-ce que quelque part su may dégg patron de presse ñu naan dañu bëgg Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko recevoir leen mu jafe leen est que c'est pas parce que chiffres la les deux têtes de l'exécutif am na ñii c'est des négriers quoi jëruñu déglu jëruñu jëruñu recevoir. Euh, il faut appliquer la loi sur eux. Hmm. Moustapha man euh, les chiffres là sama me choque vraiment euh, ci allant ci nombre de médias bi situation travailleurs yi ba ci en tout cas tout ma choque ci chiffres yi nga xam ne ñu ngi joxe donc ça veut dire que ni journée sans presse bi les pathétiques grévistes là ñoom ils sont. or la loi de manière euh, permanente. Euh, te euh, li li ci. non seulement ils la loi mais c'est les privilégiés qui étaient en absolument donc ko ñooñu noonu man jàpp naa ne euh, ay patron de presse la mais il exerce une pression vraiment sur l'administration fiscale di jéem a victimiser wu alors que lii ce sont des viola même même aide bi ñu leen di jox nii sax c'est de la loi et li ma ci gën a choqué. c'est le ministre un membre du gouvernement mmh. en fait ñoom ñoo war a euh, veiller à l'exécution des lois mmh. ces violations de la loi là il ne doit pas se contenter de les souligner, de les souligner. mais d'exiger le respect de la loi c'est ça d'aller au de ça mm-hmm. euh, ministre bi waru wa ci wax correct moom moo war a garantir l'exécution de de de de ces lois là yi nga xamante ne voté nañu ko mais mm-hmm. c'est l'Assemblée nationale moo ko voté mais naka ngay mënee jël ay travailleurs mais euh, amuñu am amuñu dara loo xamante ne sur le plan légal mën na leen garantir ñu ñu ñu liggéey convenablement euh, am sutura. loolu la booy lekk ay ginaar ak sa njaboot guddi gi sa xel war naa. waroon nelaw. bàyyi euh, reporter yi ci situation yi ñuy liggéey dafa metti au moment mais patron de presse boobu naan moom mooy grève mais mu ngi ci benn confort bu parfois bu bu extraordinaire parfois bu exagéré bu arrogant à la limite mën a débauché bu bëgg a dee voilà mais bien sûr léegi léegi normalement am na ci euh, dooguma la am na ci patron yoo xam ne oto yi ñuy dawal buñ ko jaayoon man cee fay IPRES un an te wala ñu assuré ci euh, euh, prise en charge au moins un seen i travail. montre yi nag montre yi montre bi. waaw montre yi garanti kër fekk sa reporter yi passe bu ñu dem sax pour kii da nga di gis ci mbedd bi ci condition yu metti alors en réalité loolu maanaam même la vocation de la presse ci boppam la ñuy la ñuy kii parce que en fait ce n'est pas pour euh, ñooñu dugguñu ci parce que dañoo bëgg a dundal seen métier wala wala wala wala non du loolu dañ koy def parce que dañuy am ay agenda politique yoo xamante ne jàpp nañ ne créer presse daf leen di jox influence. loolu moom moo bëri ci kii bi plus de ay 500 mais quand même. mais 50 quotidiens yuy génn à Dakar tous les jours mais ces cinquante là bu ñu xooloon quotidiens yi nga xam ne vraiment il faut de l'information. nekk di def du journalisme soo ci wàññee dix gën gaa bari ca la yem. mais li ci des yëpp c'est c'est pour faire la propagande acteur politique. mais ah? bande annonce la appliqué code de la presse di di sax day bari. mais c'est comme lim bi di doy kenn mais mënoon naa la lim tout de suite. man je le dis tous les jours et je revendique ça mënoon naa la wax tout de suite ne la su ma xëyee suba quotidien sangam sangam sangam su ma ko téye ci des yëpp mën naa koo jël lakk. parce que li ci nekk yëpp xam naa ne c'est pour dire pour confirmer li ngay wax. le président actuel. oui bu nekkee Cap Manuel. chaque jour mu xëy damay jënd journaux yóbbul ko. yóbbul ko mais man cinq laay jënd. cinq yi leer na ma ne yii mu ko jëndee bu mu ko joxee. moom bu liiree dina am quintessence. mais bien sûr pour wan la ne. non ba muy loolu daal affaire daal alors euh, euh, Mame Birame ok pas Mame Birame euh, pas Mokhtar d' abord. Mm-hmm. Pape est ce que bu ñuy lire rapport bi ñu ayob exposé léegi. gis le président Bassirou Diomaye Faye recevoir les jeunes journalistes wax ak ñoom est-ce que quelque part Euh, tey malgré la situation compliquée la situation difficile dans les entreprises de presse la misère des travailleurs de la presse est-ce que tey amuñu dëgg dëgg dëgg des alliés wala un allié à travers le nouveau pouvoir parce que impression ba am mooy pouvoir yi fi jàll yëpp dañu jàppoon ne euh, leur allié c'est les patrons de presse qui tiennent les groupes de presse mais là j'ai l'impression que on a un pouvoir qui se dit enfin il faut que ces travailleurs de la presse là soient dans de bonnes conditions quel que soit ce que ça va nous mais xam nga euh, loolu mooy avantage jeunesse euh, xam nga dossier Ousmane Sonko bi ba mu demee ci ay loxo jeune mhm. dañ jël seen responsabilité parce que ñooñ avenir dañuy sóor ëllëg nañuy sóor mhm. presse bi aussi reporter du ay pas non ñii nekk di liggéey liggéeyu presse bi c'est l'avenir de la presse du ay pas mooy ay xale yoo xamante ni buñ ko mënee wax wala buñ ko mënta wax ñoom ñëpp dañu àndoon ci combat wu Ousmane Sonko bi. parce que mhm. jàppoon nañ ni combat wu démocratie la. Mhm. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi yàgg na ci rencontre ay nit. xam na seen jafe-jafe. xam na ni ñii nii si ñoom la bokk. dañuy nekk di dund injustice. gis nga exemple que léegi un exemple simple que je te donne ni ni Bassirou Diomaye Faye un Issa par exemple xamee wuñu ko ñun. effectivement parce que c'est le gars qu'il voyait tous les jours. effectivement effectivement gis nga euh, chiffres yi Ayoba joxe man étonné wu ma groupe nekk.